lana فهالا لوجهك الكريم أوزل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مسليا مسلما على النبي بزير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرها يا من مها عن الأسى وترعى محوت ما علي مرا من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي على المصطفى بعد صلاة ما سلام من إداهم الخلا يسر لهم به الذي تحسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك الخديم عبدك مرتجيا نيل المنى من هندك فاز الذين زهدوا بالخير وباء من لم يصعد بدير أكرمت الأبرار بالنهيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادا بنار من من لم يته أبدا طيب من أراد أن ينخد ما أبرامه من ضيفه لم يندما صلاة الذي فوق الله أبدا

ñu fi nekk ñëpp di ay taalibe sëñ bi yoo xamante ni daanaka dañoo taxaw jàpp ci liggéey bi ci bés bii di wesum 18 18 safar ñu ci ànd ak sëñ bi di ci bendal ay garam nekk ci ak moom ànd ak moom ci liggéey bi lépp nag ñu koy teg ci ndigalu ku baax ki tey ji boo xoolee bërëb bii ñu nekk daanaka ñi fi nekk ñi ngi leen di wooye dañu doon service boo xamante ni service boo xamante ni uniquement pour sëñ bi dong leen tax a jóg leneen lu dul sëñ bi taxu leen jóg ay e événement sëñ bi dong mooy tax ñuy def ak ñuy def lu mel nii lu mel ni màggal ay gàmm ak ay yeneen événement tey jii boo xoolee ñu ngi leen daayira bi nax ju la tudd ñi fi nekk nii ñu leen di woy waa nax ju si waa ndax ci wàll bi ñuy yëngu bu ngeen xoolee soxna si toog fii maanaam ñi ngi ci wàllum keek yeeg pain ay farine ak yooyu ngeen xool ci wet Baye Ali mi ngi fi tout ce qui est moom da koy def maanaam kafe kafe au lait Lipton lépp lu waaye di yittewoo rek da koy def loolu lépp nag ci ndékki bi lay doon parce que moment bu nekk ak li muy laaj ndax à chaque fois sa dépend mën nañ def ba def trois mises en place wala quatre mises en place ci journée bi petit déjeuner déjeuner des fois ñu def cocktail ak diine yëpp dañ koy def daal lu mu ñëw rek ak lu muy àndal waa xam nga loolu nag li ko waral mooy d'abord xam nga boo ànd ak kilifa di liggéey daanaka moom mu moom ci wàllu boppam mu am loo xam moom daf ko bëgg muy leen à chaque fois bëgg na ni ay ganam bu ñu fi ñëwee gis li fi am ñun ñi ànd ak moom di liggéey tamit ñu ñu nekk ci liggéey bi ak pas-pas goo xam dañ koy def ci liggéey ak bëgg-bëgg ci bëgg bi ñu koy def. looloo waral liggéey bi saa su ne à chaque fois dañ koy améliorer ndax liggéey bi ngay gis tamit du loo xamante dañuy toog rek improviser ko def ko day laaj ay réunion laaj ay toog waxtaan ñu préparer ko prépare ko waajal ko ba tey jii lépp daal maanaam tey jii bu dañuy lu ñuy la daal en quelque sorte ba jouru màggal yi du doon sax jouru màggal des fois dañuy def 3 jours avant ak jour ji ak 3 jours après dañ koy def daanaka muy 7 jours yoo xamante dañuy nekk ci service bi rek daal loolu nag daanaka boo ci yàggee di ko liggéey ak pas ak bëgg-bëgg faw évolution am ci daal looloo waral nag évolution liggéey bi saa su ne ngeen koy gis daal. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar ku nekk di la jox sa wàccuwaay di leen jaajëfal bu baax si teewaay bi ngeen teew ci bés bi fii kër sëñ Moutalla moom Serigne Saliou. man la Soxna Yacine Diagne Diagne waaw xam nga ne eh, kon niñ ko xamee rek si màggal si mbiru sëñ Touba yëpp nag moo mel noonu tànk amul tànk ginnaaw tànk kanam la am loo commencé ren ëllëg da nga koy doublé kon nag boo leen ñëwee fekk fi dara daaw ren ngeen gis changement si innovation yi la bokk te ñaan yàlla mu jëm kanam wàllu xéwal yi ah yéen yéen a seen bopp gis ngeen gis ngeen yi si delloo <laughs> laax waa laax a ngi fi càkkri ngi fi am na lépp lu waay soxla daal boo ñëwee ci table bi di nga ko fekk pour ndékki waaw <laughs> lépp a ngi fi waaw euh, kii yaa ngi ni euh, croissanteur yi ñu ngi nii soo demee fee show baa ngi fi fruit yaa ngi ni bu sedd bi nga xam ne ñëpp ñoom mënu lay soxla ci période bi dafa tàng moo ngi ne <laughs> waaw <laughs> xam-xam mbébétu sëñ bi ak yëg-yëgu sëñ bi moo tax ñu nekk si nii ki képp koo gis fii du pro liggéeyam nekkul service wala nekk di eh, toppatoo ay kii dañoo xam bëgg-bëgg sëñ bi ak yëg-yëgam si toppatoo ay ganam moo tax ñu nekk boo ko bokk moom liggéey bi di ko ci dimbale waaw di leen sant nag yéen ñi bu baax di sant suñu sëriñ nag di ko ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak yàgg ñu yàgg di ko liggéeyal di liggéey sëñ Tuubaa mi nga xam ne mooy maam ba mu yeggali bépp mbébét boo xam ne am na ko rek si liggéey sëñ Tuubaa bi ñu ngi ko koy ñaanal bu baax a baax di leen sant yéen ñii bu baax a baax di leen gërëm di ñaan yàlla ñu teewee ko ay at yu bare baree bari ñu yàgg ngeen yàgg di ñu interview ñu leen di wax yëf di gën a xéewale <laughs> di gën a yokk ba ilaa yow mi di allah <laughs> jàppale sëriñ bi ndax maanaam ku tedd ki lii rek la woote loo xam ne da cee laaj ndimbal muy cant gi ñu ñëw rek daal di fas yéene jëfe ndigal ànd koog sëriñ waaw suñu teewaay nag mooy danoo bëgg bi 17 safar 18 safar ba 19 safar lépp loo xam ni luy tàng la bu mu manqué ci kër dañ koy séddale en permanence luy ta ku mel was lu mel ni meew yooyu ak ay tàngal ak yooyu yoo xam ni dañ koy dañ koy séddale tout tànk yi pour que ku nekk rek yëg sa bopp ci màggal gi waaw loolu mooy suñu taxawaay waaw liñ ci gis kawe na njort santaat nañ ci bu baax a baax ndax nit ñi dimbali nañ ci li nga xam ne mooy liggéey bi boo ñëwee bu baree nit loo wax nit rek da ci da koy da koy da ciy d'accord koo ne puusal dina puus koo jox dina nangu koo ne mat na mu demaat ñëwaat ñu ciy sant bu baax a baax a baax ñu santaat bu baax sant ndax dañoo gis ak yokkute maa màggalu ren gi dañoo gis ak yokkute ndax bii du première édition bi def nañ ko defaat mais ren dañ cee gis yokkute bu baax a baax a baax ñu santaat ci ndax ñi ngi yëg cantu sëriñ bi ci ci liggéey bi ñu ngi ciy santaat bu baax a baax a baax ñu santaat sëriñ Mourtada bu baax a baax a baax waaw xanaa jaajëfal leen di di sant bu baax ci seen teewaay di wax ni lii am na solo lool. ndax dina bokk ci li ñuy dimbali ci liggéey bi ba ëllëg lépp loo xam ne yéene nañ ko ci rek ab nit mën na ñëw jàppale ñu ci ndax dañ cee yéene ñëpp maanaam daat ci bëgg koo yaatal te lii dina bokk ci li nga xam ni dina ko wasaare ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm moom tawfeex rek tawfeex moom tawfeex rek na ko tur bi topp ba ñu sentir ko ba ñi ci nekk képp ku fay yeewoo xam ne mi ngi tawfeex production ñu dégg leen fépp ci àdduna santaat nañ bu baax a baax a baax di ñaan Serigne Mourtada mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ñii di ay njabootam tamit ñu yàgg fi lool ànd ak wér te yàgg koo liggéeyal ñu ngi santaat bu baax a baax a baax. ñu ngi leen di ziar mbokk yi di leen euh, jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal di leen ziar bu baax a baax ci màggal gi man la soxna Ndeye Ndiaye bokk daayira ju bu Thiès daayira yi région yëpp la mais bii mooy daayira ju bu Thiès. Ah, man maa ngi ñu ngi nekk ci ñun ñoo nekk ci maanaam suñu service mooy service accueil accueil lañ nekk nii. man ak soxna yi ak euh, sunu càmmiñ yi mhm. ah xanaa lii ñu waxoon rek ni sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am lii bañ koy door euh, mi ngi bëgg a yàgg am na ayat waaye borom màggal gi euh, moom defe naa ni moom ku ne xam na ni moom loo def ci moom benn bu déwénee ñaar nga am ñun waa daayira nax ju bu Serigne Mourtada Saliou ba ñuy tàmbali lii maanaam comme ay tuut tànk lañ ci sunu lu ñu am daal ci lu ñu yàlla wërsëgalee ci la ñuy jël. di natt saa su ne chaque daayira wala chaque weer su gi jotee ñu joxe sas daal di dajale ba ñu am as ak tuut daal di jënd bagage yi daal di indi ngir rek taaral bis bi lépp rek ngir euh, bésub màggal gi di sunu maam borom Touba euh, rafet daal lépp loo xamante ne daal xalaat nañ bu ñu ko defee jëmmal bés bi rek ñu def ko fii ci kër Serigne Mourtada Saliou Mbacké looloo ñu tax a jóg waaw maanaam comme ni ngeen ko gisee nii ku yegg si rek si ñun ngay njëkk a euh, yem ci ngay ñëw soo ñëwee ak sa tàngoor wala nga dox ba ñàkk soo yegsee ñu dalal la nuyu la jox la sa wàccuwaay laaj la bu dee ndox mu sedd nga bëgg ñu may la nga naan bu dee jui ñu xelil la su dee was nga bëgg ñu xelil la bu dee kafe nga nga bëgg ñu jox la ay tàngal ak ay ñoom gerte gi yëpp am na dañ koo joxe ba mu kii nii mais dañuy ñëw rempliraat léegi léegi soo toogee ba dal ba jël loolu après ñu daal di jàll jàllale la ci biir fee ñu daal di commencé bernde yaa xam foofu loo bëgg ndawal nga bëgg wala fruit wala lu mu mënti doon ci loolu daal la ñuy yëngu lépp ngir rek bés bi gën a taaru daal ah xanaa sant bu were wer rek di leen jaajëfal di ñaan sunu sëriñ biir Seex Murtada Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg loolu te wér sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér di ñaan ñun it di ay ndaw te jël yoon wii fas yéene liggéeyal maam borom Touba di ñaan yàlla nañ gis sunu yàlla na ci sunu borom jàpp ci barke borom bés bi muy gën a jëm kanam ñu koy gën a jëfee may ñu ak yokkute ba ñuy def lu kawe sunu njot di def li gën a mooy mu sunu yéene lu gën a kawe lii moom daal la ñuy moom la ñuy ni sax daal mën nañu dañuy jéem rek gi am ci màggalu ren gi bi ci njëkk mooy pas-pas bi ak pasteef gi dafa gën a yokk waaye loolu yi dañ koo jàngate ci suñu yaakaar tey ëllëg sëñ Mourtala mu sëñ Saliou ndax daa am bis ñuy waxtaan ak moom ci màggal gi ci waañ wi mu ni moom buggut a dégg ni waañu daa tàng wala naaju daa tàng ndax liggéeyal sëriñ tubaa jar na lu ëpp loolu kon ñiim fi nekk ak ñee toog ñëpp ñu nekk ci waañ wi li yees ci màggal gii mooy seen pas ak seen pasteef ci liggéey Serigne Touba taxawaay bi moom man yéem na ma taxawaay bi yéem na ma lool moo tax maa ngi leen di sant ci sama tur ak ci turu sëriñ bi ci pas-pas gi ñu wone ci màggal ren gii ndax xam nga ne soññe dafa metti te yàlla ma tiim xam na ni wallaahi alazim ku ma ci soññu ngir liggéey bi ñoom ñëppay toog fii ba ñu xëyee ba tey fii la ñuy ndékkee fii la ñuy añee fii la ñuy reere ñoom ñëpp nag Assane mii dend ak man ak ñoom ñii amu ci kenn koo xamante ni sa dal ngay fanaan ngir lan ngir xéew li bañ a tardé ngir ndékki li mën a ñëw ci teel añ bi moom gën gaa naaj une heure danañ ko yàq reer bi 9 heures mu pare te lool lii leen diggante woon ak sëñ bi comme nag yàlla dafa dogal ñu jàkkaarloo ak sëñ bi wax ko loolu yi dinañ sàmmonteeg loolu yi ba loolu yi mën a nekk moo waral innovation bi moom chaque fois rek day doon une innovation de taille day doon un changement important pour que véritablement ñu mën a dem ci li nga xamante ñun moom lañ diggaleen alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi santaat bu baax sëriñ bi di delloowaat njukkal bu baax a baax suñu yaakaar te sëñ Moutala mu sëriñ Saliou ñu koy delloo ñaanal rek di sofaat suñuy kàddu ñaanal sëriñ bi suñu borom gën ko fay yàggal te wéral ko mottali ay yéeneem ak i pas-pasam te lépp rek ñu ànd ak moom mel na ni it liggéey bi ni nga ko waxee ci li nga jiital say kàddu muy baatu Assane Bana rek day mel ni lu ñuy santeewaat sëriñ Touba la waaye dañuy xam ni kàttanug sëñ Moutala mu sëñ Saliou képp la kon daanaka lépp luñ ci munti déggit ci wàllu mbana yi moom tawféex rek lañ koy jàppee. mooy sant sëñ rek ndax xam na ni li ñuy wax sunu bëgg-bëgg la sunu yéene la tamit waaye pas-pas bi ak li koy li koy sottil sëriñ bi la moom. bu ñu joxee suñu kàddu dañuy dox rek jëm ci waaye ni sëriñ bi bëggee rek noonu la amee sëriñ bi moo bëgg liggéey bi ñun ni ñu koy waxee muy amee noonu saa bu woon tamit suñu kàddu dañuy tam maanaam sëriñ ñu xam ni noonu la ko sëriñ bëggee waaye sëriñ bi moo ñu lee ñu mën a dugg ci waa ñu am passif ndax xëy na am na ci ñu bari ñoo xam te ne si ñu ngi daj ay coono yoo xam ne bu doon seen këri ndey wala seen këri baay ku leen ko defaloo dañuy lànk mhm. kon bu naroo ba ci kër sëriñ bi nangu ko fi rek xëy na kon lépp baatinu sëriñ bi la kon gaaw geeg yeex gi ak passeef gi lépp rek day delluwaat ci pas-pas bi sëriñ jëwriñ wax ndax xam na ne suñu digganteeg sëriñ bi moom pas-pas rek moo ñu mën a jariñ dara. di bëgg sëñ bi tamit di ko ñaanal gudd fan ak wér lool di ñaanal jëriñ si gi yëpp tamit te xam ne ñu ngi am chaque jour mbégte si kër gi amuñu benn yoon lu ñu naqari si kër gi depuis ba ñu fa duggee ba tey mosu ñu fa am wax dëgg am lu ñu naqari wala ñu dégg lu ñu naqari wala ñu def lu ñu xam ne dañuy toog di ko imaginer mu ñu naqari mbégte bëggee jàmm salaam gis nga waañ bi du mel ñëpp nekk benn muy góor yàlla muy soxna yi di ñaan rek muy gën a wér saa su ne. macha allah macha allah lépp sëñ bi rek la ñaanu sëñ bi rek la ndax xam nga àndu jigéen doy na waar waaye lépp ñaanu sëñ bi la moo boole xol yëpp ñëpp doon benn fii boo fi ñëwee da ngay dund mbégte ñëpp a ngi dund mbégte amul kii am ko daa mel ne ñoom ñëpp bokk ndey ak baay ni nga koy dundee noonu la ko ñoom ñëpp di dundee di ko yëgee nii fii nii xol ngi sedd guy macha allah lépp nag dañ koy delloo sëñ bi rek. mu yàgg fi lool nag te ndax ku nekk ci keppaaram nii rek ngay doxee ndax moom nii la doxee. ndax sëñ bi daf ñoo booleek ñoom ñuy sunu lépp ba pare oyof lool ndax xam ñëpp xam na ni soxna moom jigéen moom euh, dafa am nu ko yàlla binde ak nu baaxoo waaye ñii dey sëñ bi tàggatal na lu leen ba wax dëgg yàlla ñoo ngi ànd àndinu rafet di leen sant baax di leen gërëm ci turu sëriñ bi di bëgg nag ci teewaayu sëñ Pape Samba njaay mii. ndax kii mooy président commission d'organisation Kër Sëñ Talla mooy sunu kilifa ci kër gi tey jii kàddu yi ñu yëkkati bu ñu noonu bu leen ko yëkkati duñ ko yëkkati waaye ndokk ba mu joxee ndigal kon ñu jox ko kàddu gi rek mu am lu kàddu yi mu ci yëkkati kàddu gi doog a dellu saat ci man asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax waa Touba Tawféex ñu ngi rafet lu bu baax seen liggéey ndax bañ leen gisee ci kër sëñ bi xëj na yàggul waaye mi ngi mel ne yàgg na ndax ñu ngi ndax liggéey bu rafet eh, gis nañ toog nañ ba tàyyi di dégg sëriñ bi di seede seen liggéey bu rafet mm-hmm. kon duñ def lu dul féddale waat loolu tàmbalee foofu wax gi eh, comme ni ko suñu jëwriñ Manel Fall waxee rek liggéey bi moom day liggéey boo xamante ne liggéey sëñ Mourtala la eh, muy ndigal ñu ànd kook moom muy suñu bunt ci sëriñ Touba ci bisu màggal gi nga xamante ne mooy màggalu sëriñ Touba gi di santale suñ boroom ci bisam bii buñ ci fekkee ngeen di def lu rafet lii it duñ def lu dul rafetlu ko rek ni ngeen ko defee it bég nañ ci kontaan nañ ci bu baax mais nu manel mii rek nga xamante ne mooy jëwriñ ci ci kër gi di jëwriñu waañ bi su waxee rek mel na ne yóbbaale nañ ñëpp kon duñ def lu dul rafetlu ko bu baax di ñaan euh, nii ngeen ko defee euh, mu muy gën a taw féexe comme ni ni ni wuyu seen tur bi yàlla na ko sëriñ bi def te mën na ko te bis bi àttan na ko di santaat bu baax soxna yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci waañ bi ndax gis nañ seen teewaay ci waañ bi bañ fi dugg ba léegi gisuñu kenn ku génn waañ bi lépp lu sëriñ bi joxe ci ndigal gis nañ ne taxawu nañ ko bu baax ànd kook seen jëwriñ ji kon duñ def lu dul di santaat bu baax di ñaan Cheikh Mouhamadul Mourtala moom suñu saali suñu borom yàggal ko fi te way ko wér bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. jërëjëf Pape Samba xam naa dañuy jël kàddu yooyu nag toftal ci ay kàddu cant cant gi moom ci kenn képp la jëm. di sëriñ bi ndax daf ñoo war sunu diggante ak moom ndax ñun sàkkuwuñu ànd ak moom yàlla moo ñu dimbali boole ñoo moom ñu ciy sant nag bu baax ndax bu ñu yàlla boole woon ak keneen nit ci beneen anamit it du ñu am pexey gàntal ànd boobu yi waaye ndokk bi ñu yàlla booleeg moom ñu fekke ko nin ko bëggee yàlla na yàlla yàlla na yàlla dimbali moom it mu gis ci ñun ni mu ko bëggee loolu la ñuy ñaan waaye ñun nin ko bëggee amee na nen ko ni ñoo ngi koy sant di ko gërëm. ñu leen ñu koy sant di ko gërëm te bu ñu ko tuddee rek tudd nañ ñëpp tudd nañ jëwrin tudd nañu taalibe tudd nañu ñëpp rek bàyyiwuñu kenn yàlla na yàlla dimbali nii ngeen ñëwee ren ñu jàkkaarloo yàlla na ngeen ñëwee noonu déwén ñu jàkkaarloo waat. te kenn bañ a manqué kenn bañ a wopp te ñëpp ami xéewal ca daraja Sëriñ Tuubaa Billah